Euh, merci beaucoup Aïcha euh, di profiter ci occasion bi di nuyu bu baax sa téléspectateurs yi nga xam te ñu ñuy seetaan. Mhm. Euh, di kontaan bu baax ci ni nga formuler sa question parce que yaa ngi naan euh, ñii dañu d'accord ci dialogue bi ñii d'accorduñ ci la dénote que dañu nekk en démocratie et que en réalité cette démocratie là moo nekk di dund dans la coalition Yewwi Askan Wi et c'est ce qui explique que. quand une question s'est posée dans la coalition que ñii d'accord ne dañu war a dem ci dialogue bi ñii bañ a d'accord ne duñu dem ci dialogue bi parce que aujourd'hui ce qu'il faut euh, remarquer c'est que c'est pas uniquement Taxawu Sénégal qui a décidé de participer au dialogue waaw mais il y a d'autres partis qui appartiennent à la coalition Yewwi Askan Wi et qui ont de participer au dialogue mm -hmm. dire que donc du Taxawu Sénégal kese mais loolu aussi dafay wane ne en démocratie ku nekk da nga am droit euh, nga défendre say position et c'est ça le plus xam nga soo nekkee ci démocratie euh, li bon mooy bañ am position mais am position c'est pas un délit mais soo amee position aussi il faut avoir le courage de défendre tes positions et ñun aujourd'hui c'est dans cette perspective là la ñu nekk loolu moo tax après concertation en interne dans notre parti on a décidé de demander à notre leader le président Khalifa Ababacar Sall pour mu dem wuyu ci dialogue bi pour waxtaan ak les forces yi nga xam te ne ñoo nekk au Sénégal. Euh, en l'occurrence euh, le président Macky Sall pour ñu trouver un consensus par rapport à beaucoup de questions yu nga xam te ne mu ngi agité wu sur le landerneau politique te ñu jàpp ne il va falloir que ñu waxtaan ci balaa ñu dem ci élection yi nga xam te ne ci la jëm. est-ce que trahiroo leen mafia bi au début. Mm-hmm. est-ce que d'accordoon ngeen loolu au sein de Yewwi Askan Wi. Euh, non xam nga bi ñuy taxawal Yewwi Askan Wi il n'était il n'était pas question que dinañ dem benn jour waxtaana ji donc amul question de mafia. mais ce qu'il faut comprendre mooy on est une coalition constituée de partis légalement constitués de partis yu nga xamante ne ku ci nekk da am ce qu'on appelle une liberté d'expression et liberté de ton ñu jàpp ne war nañ ko mën a nangul parti bu nga xamante ne da nekk ci biir coalition bi je donne un exemple bi ñuy créé la coalition Yewwi Askan Wi gëm sa bopp mu ngi woon ci biir mhm. à un moment donné gëm sa bopp s'est rendu compte le mode de fonctionnement de la coalition Yewwi Askan Wi ne colle pas avec ses principes mu bàyyi fa Yewwi Askan Wi génn dem créer beneen mouvement pourtant en en ce moment là ça avait peut-être posé un peu de problème mais en réalité on doit accepter que nit am fu mu bokk dem ba mu neex ko mu gis ni fii gisu fa boppam mu génn dem outil yi feneen nous on a pas fait ça nous on a préféré rester dans la coalition et continuer suñu principe de constance mais aussi nous défendre dans la coalition. est-ce que amoon ngeen le choix justement boo leen demaloon seen bopp ndax di ngeen am doole. demal suñu bopp ci. Euh, non bon xam nga euh, élection moom Sénégal dafa am réalité boppam on est tous convaincus que élection fii Sénégal amul benn parti bu mën a dem à lui mun ko fi gagner ça c'est une réalité qui est là c'est explique le président Macky Sall malgré qu'il soit le président de la République bi mu demee élection en 2019 il est parti en coalition il aurait pu dire yéen ñi ma àndaloon dem leen seen yoon ngeen bàyyi ma man waa APR ki ma dem mais il sait très bien que d'accord et la coalition également on y était avec des partis politiques yu nga xamante ne ñun niñ ñoom ni ñuy yóbbaale ñun aussi noonu lañu leen yóbbaale. d'accord.